Oustaz Mor Thiam waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Hadj Babacar delloo naa la nuyoo bi ak ci yóbbal bi mujj ci semaine bi. waaw Hadj Babacar yóbbal bi mujj ci semaine bi nag dafay ñëw ci. koo xamante ni kii bëgg na sunu boroom dimbali ko. di ko tekki làmmiñam mu am kàddu gu yomb pour di ko wax. làmmiñam su bëggee wax surtout ñi nga xamante ni bii bu nit ñi dajee dañu leen di jox kàddu ñuy wax. ak lu ñu mën a tudde seen bopp. waaye ñuy jël kàddu di wax. bëgg nag sunu borom di leen may bu ñuy wax wax ja di set nit ñi di ko dégg muy am njariñ ci ñoom suñu mënee di jàng lii balaa ñoo dem ca waxukaay ba ñu nar a waxee ñu wax ko jàng ko incha allah wala bu ñu leen joxee kàddu balaa ñoo wax ñu wax ko sunu boroom mën na jubal seen kàddu ba kàddu ga dana neex a dégg incha allahu taala mooy dañuy wax allahuma aatini l xikmata اللهم آتني الحكمة التي من أوتيتها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم آتني الحكمة التي من أوتيتها فقد أوتي خيرا كثيرا حاج بابكر لي دال كوكو منا كوكو منا موكال ديكو واخ بلا nga jël kaddu yalla man na la jubalal sa kaddu neexal sa xel baaxal sa làmmiñ Xaaji Babacar. jërëjëf Oustaz Mor